yàllaay may Abdou waxal ma loolu. hey wax leen. moo lii neexul. moo lii neex na. moo neex na. waaye aareef lii neexul. Seri Sali lii neexul. lii neex na. hey. ku bañ dogal di nga sonn jaxle kenn du ko faj sa dara yàllaay dogal lii lii lii lii neexul <laughs> mais mais ñii dégg luñ la wax xam nga yàlla <laughs> xam ah. xam ne sa interview bi sax dama waxoon ko def mais xam nga aussi. gars yi YouTube bi dañu may nam. dëgg la na ma sax bi xanaa xam ne man bi man dama parce que man si sama sif ba pare wa Wassare sama site la. man dama dama am sama site nag duma fen wasaay sama site la. jiili ba wasaay di doog a gën la ma woo ma fekk la Gambie. Basiirou Diouf aussi ma bëgg ak sama bopp. parce que sama doom bàyyi la nag. man maa ko bëgg ak sama bopp. kon fii nga ñëw foofu la. sama waay nga. ñoom laaj ku xew daaw bi nga fi bi ñu suyee seen bi dañu maa woo. non yow la ñu lu mu ne lii neex na. loolu lu mu. loolu lu mu. neexul. waa lii neexul. waa lii neexul. waa lii neexul. waa lii neexul. waa lii neexul. waa lii neexul. waa lii neexul. waaye nag.